jëf ya saar fukk ak juróom ba apolos nekkee korent nag pool jaar ca teggi ya gën a kawe ca réew ma doora dikk efes noonu mu gis fa ay taalibe mu ne leen ndax jot ngeen ci xel mu sell mi bi ngeen gëmee ñu tontu ko déggunu sax ne xel mu selli mi am na mu ne leen kon nag bi ñu leen sobee ci ndox lu ciy maanaa ñu tontu ko xanaa li yaxya tëral pool ne leen yaxya daan na sóob nit ñi ci ndox ndax bi ñu tuubee seeni bàkkaar te mu ne bànni israyil ki topp ci moom lañu war a gëm maanaam yéesu bi ñu déggee loolu nag sóob nañu leen ci ndox ci turu yeesu borom bi te bi leen pool tegee loxo xel mu selli mi ñëw ci ñoom ñuy wax yeneeni làkk di wax ci kàddu yàlla limub nit ñooñu nekk na lu mat fukk ak ñaar noonu pool dugg ca jàngu ba di wax ak fit wu dëgër diirub ñetti weer di diisoo ak ñoom ci mbirum nguuru yàlla di leen jéem a gëmloo waaye bi xoolu ñenn ci ñoom fàtte ñu gëmadi bay suufeel yoon wi ci kanamu mbooloo ma mu jóge ci ñoom xaajale taalibe yi ak ñoom di diisoo bés bu nekk ca jàngukaayu ku ñuy wax tiranus muy wecci noonu diirub ñaari at ba ñu dëkk diiwaanu asi ñépp dégg kàddu borom bi muy yawut muy grek booba yàllay def ay kéemaan yu ràññeeku yuy jaar ci loxoy pool ñuy yóbbul sax ñuy wopp ay kaala ak ay taraxlaay yuy laaloon yaramam ba jàngoro yi di leen bàyyi rab yay génn ci ñoom noonu ay yawut yuy wëndeelu di faj ni rab jàpp ñu di leen jéema ñaanal ci turu yeesu borom bi naan ci turu yéesu mi pool di yëgle génn leen ñi doon def loolu juróom ñaari doom lañuy woon ci seva mi doon taafantaloo saraxalekat bu mag ba ci yawut yi waaye bi ñu ko defee rab wa tontu leen ne xam naa yéesu xam naa it kuy pool waaye yéene ñan ci kaw loolu nit ka rab jàpp songu leen noot leen ñoom ñépp mu soxore leen lool ba ñu daw kër ga def yaram mu neen te gaañu bu metti loolu siiw na ci ñépp ñi dëkk efes di yawut ak grek tiitaange jàpp leen ñoom ñépp ba ñu màggal turu yeesu borom bi bi loolu amee ñu bari ci ñi gëm ñëw di wasar ci kanam ñépp seeni jati luxus te ñu bari ci ñi daan luxus indi seeni téere lakk leen ci kanam ñépp te bi ñu xaymaa njëg mu tollook juróom fukki junniy posati daraxma noonu la kàddu borom bi lawe te noot lépp bi loolu wéyee pool nas xel jëm yerusalem jaar ci diiwaanu maseduwaan ak akayi mu ne ginnaaw bu ma fa demee faw ma seeti romit mu yebal nag ci maseduwaan ñaari jaraafam di timote ak erast waaye moom mu des ab diir ci asi fekk booba amoon na yëngu-yëngu bu rëy ci lu aju ci yoon wi ndaxte nit ku tudd demetriyus di tëggu xaalis buy defar nataali xaalis ngir màggal artemis daan ci jariñu lu bari moom ak ay nawleem noonu mu dajale leen ak seeni liggéeykat ne leen gaañi xam ngeen ni sunu njariñ mu ngi aju ci liggéey bii gis ngeen nag te dégg ne pool male gëmloon na bay fab bi mbooloo mu bari waxuma ci efes rekk waaye ci biir asi gépp naan yàlla yu ay loxo defar duñu ay yàlla léegi kat loraange ngi nuy yoot te du yem ci xañ nu suñu liggéey rekk waaye it dina daaneel màggalukaayu artemis sunu yàlla ju màgg ji tey neenal ndamam moom mi asi gépp te àddina sépp di màggal bi ñu déggee loolu mer mu rëy tàbbi ca ñoom ñu yuuxu ne artemis mu efes màgg na noonu dëkk bépp jaxasoo ñu bokk benn xalaat daldi ne milib ca powukaay ba dirikayus ak aristark waa maseduwaan ñi ànd ak pool pool nag bëgg dugg ca mbooloo ma waaye taalibe ya nanguwuñu ko ñenn ca jawriñu nguur gi it ñuy ay xaritam yu ne ci moom di ko dénk mu bañ a jaay bakkanam ci dugg ca powukaay ba noonu ndaje ma rëb ba ñii di yuuxu lii ñele di yuuxu laa te ña ca gën a bari xamuñu lu waral ndaje ma ci kaw loolu yawut ya jeñ aleksandar ci kanam te mbooloo ma di ko xaacu ak ay ndigal mu daldi tàllal loxoom ngir lay ca mbooloo ma waaye bi ñu xamee ne yawut la ñépp bokk benn baat yuuxu diirub lu mat ñaari waxtu naan artemis mu efes màgg na gannaaw loolu boroom dëkk ba dalal mbooloo ma ne leen yéen waa efes ana ko xamul ne dëkku efes moo di wattukaayu màggalukaayu artemis ak nataalam bi wàcce asamaan gannaaw nag kenn mënta weddi loolu war ngeen a dalal seen xel te bañ a sañaxu ci dara ndaxte nit ñi ngeen fi indi sàccuñu ca màggalukaay te sosaluñu sunu yàlla su fekkee ne demetrius ak ay nawleem jànkonte nañu ak kenn am na ay bési layoo ak ñu yilif réew mi nañu fa woo ku ñu am lenteel waaye su ngeen dee laaj leneen mbooloom dëgg dina ko àtte ndaxte fii mu ne mën na noo jiiñ jógug mbooloo mi ndax li fi xew tey te bu loolu amee du nu am aw lay ci mbirum mbooloo mu rëb mi ndaxte amul dara lu ko waral bi mu waxee loolu nag mu tas mbooloo ma